asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama bépp mbokku sénégalais góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne dëgg rek moo tax ngay dund képp koo xam ne dara faqul sa bët maa ngi lay maa ngi maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant li ma dañuy ñëw nag di wax c'est trop c'est important et c'est très urgent mais ñaan képp ku jot vidéo bi nu ko transmettre ba 17 million des sénégalais jot ci. ndax li ma ki Sall def démb ci guddi ay ñoñam li ñuy def démb ci guddi ci te moom mu sant leen ko billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall lii bu génnee lu lii génnee tas àdduna tas àdduna maa ngi la ñuy waatal billaahi wallaahi wa taalaahi di waat ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass mi ma yaakaar àdduna ab illaaxira li ma la ñuy wax lu dëggagul awut benn sikki sàkka démb ci guddi dem nañ jëli Sonko te avant ñu koy jëli Macky Macky loo def yàlla weer na waay waay Macky loo def yàlla weer na Macky bàyyi lu bon Macky bàyyi lu bon loo def yàlla weer na démb ci guddi dem na jëli dem na dem na ñu euh, drogué Sonko dégg nga li ma la wax piqûre ñiy wax la li may wax dafa ma cee leer naññ comme midi. di la ñu waasal samay bakkanu doom bu dee lii may wax du dëgg bu ma paree vidéo bi yàllaa suuli samay doom léegi léegi léegi léegi Sonko jaralu ma ko Macky Sall jaralu ma ko ay ñoñam jaralu ma ko adduna jaralu ma alalu adduna jaralu ko lenn jaralu ma ko man dama suur démb tey door a ñëw Macky Sall ay ñoñam ñu pikiir démb Sonko Sonko bi muy dugg ci biir oto ba negut newut ci fii ci planète bi newu ci ñu jël ko yóbbu ko futti ko ba ni ni ndeyam ni ko ndeyam juree solol ko caleçon caleçon laa leen wax de caleçon lañ solol Sonko bàyyi ko ba nga xam ne ay quelque temps affaire bi xaw na reprendre tuuti te xoole ba pare ils sont fait ils ont fait une chose très très très dangereuse vidéo bi dina génn dina génn mais bu ngeen bu ngeen bàyyee seetlu tuuti ngeen gis ne les paroles et les gestes ne sont pas pareils les paroles et les gestes ne sont pas pareils Macky Sall yaa bon Macky Sall yaa bon say ñoñ bon dégg nga at ndaw soosu xawma comment elle s'appelle encore Adji Sarr ñu def ñaari vidéo boo xam ne Sonko il est tout li mu soloon bi mu nekkee bi mu jógee ci euh, comment dirais-je ba ca police ba moom la solaat ci benn vidéo bi avoué lépp avoué lépp dégg nga deuxième chose bi beneen beneen film bi moom la ak Adji Sarr non sama wëccu wëccu laay bëgg a def wëccu laay bëgg a def parce que loo xam ne doomu aadama def loo nañ ko côté bëgg ko il était pas avec ses ses sa sa personne loolu baaxul man yow Macky Sall yéenewuma la sax loolu billaahi wallaahi wa taala yéedoonu ma ko si benn doomu aadama du jullit du chrétien du kenn parce que lu bon baaxut lu bon baaxul luy luy tas réew baaxul Macky Macky yërëmal doomu aadama yi Macky loo lekkul woon doo ko lekk Macky alal li muy bëri bëri bëri bëri bëri kër ga la muy rëy ci benn néeg ngay fanaan lal ba ca genn wàllu gare ngay fanaan Macky kon nga xam ne àdduna du dara Macky àdduna du dara li nga def dafa ñaaw ci doomu jàmbur li nga def dafa ñaaw ci yaakaaru àdduna ku la wax Sonko mun na bañ a jël réew mi waaye am na njaboot Macky Sonko am na njaboot Sonko am na ay soxna Macky nga def lu ñaaw lii man waxuma sax sénégalais yi koy gis mais moom ak jabaram moom ak ay jabaram moom ay doomam di gis loolu war a màgge ci réew ma war fa tekki Macky yow bu mettee nga ñëw fii bu méttee nga génn ñëw boo yaa boo nekkul Europe nekk états uni Sonko Sénégal rek la am sunk ay doomam Sénégal rek la am Macky lu lu waral lu ñaaw Macky lan moo waral lu ñaaw laa xamut Macky Sall lan moo waral lu ñaaw nga def lu raf lu ñaaw lii lu rafetut lii ah bu futti doomu jàmbur mu nekk ci ay seen yoo xam ne non no non non non non mais nag xam nga Macky nee nañ la lépp loo def rek suba ba ngoon jot yàlla weer la te Macky woo gëm na yàlla dalay weer xoolal ña ko yóbbu ah te dañu jël nag benn équipe sélection ne ko de mais xam nga lu lu toj diir bi lu tax affaire bi fuité parce que fi mu nekk nii dañoo bëggoon Sonko ñibbi tey tey tey tey tey këram ñu ne ñu libéré nañ ko ñu toog même pas deux trois jours vidéo yi génn vidéo yii génn dégg nga xam nga lu tax lu tax lu tax loolu amut à part que Sonko nanguwut xam ngeen lu tax amul yéen a xam lu tax amut ah parce que montage yu video bi ki koy def c'est appareil euh, bu ñu jëndee ils l'ont acheté ils l'ont en dor du Sénégal vers les pays asiatiques la ñu jënd appareil boobu appareil boobu soo ko jëlee teg bu euh, bu bu ça peu de minutes mu mu mu accordé samay mu mu mu mu mun a wax samay ni may waxee man doomu aadama pas de minute mu jël sa voix dégg nga lenn rek la appareil bi munul parce que mun naa waxee nii mu génn mu wax tombe may def beneen ges ñu ngi monte nag ñaari film la déglu leen bu ma li ma leen wax bu baax boo xam ne Sonko moom kenn mu togg di avouer les avocats de Sonko di ubbi seeni nopp li ma la ñuy wax. li ma la ñuy wax di ngeen ko gis waaw mais nag xoolal bés bu ngeen tegee seen diir ñu toj ko Macky sàll ay alal nga am di dem def lu la neex ci àdduna bi jënd sa ay matériel lépp mais Macky nag da nga xamul benn affaire alal ni la ko yàlla mayee la ko mayee ñeneen ñi Macky xamoo ne yàlla bar yow rek deful mayu la ko yow kese Macky ni ngay def bay def lu ñaaw Macky mi ngay def bay def lu ñaaw am na koo xam ne xoolal na nga defee lu ñaaw ñun moom la ñuy fay am suñuy am am suñuy renseignement Macky tu es prêt à faire du mal mais nous on est prêt te